yow mii di seetaan dalal ak jàmm ci chaîne bi di Tivaouane Tawfekh bul fàtte abonné ci chaîne bi di Tivaouane Tawfekh aimé vidéo bi commentaire ngir nga jàpp ci liggéeyu chaîne bi di Tivaouane Tawfekh nga xam ni Tawfekh rek la leen di jox yow mi nga xam ni da nga am programme wala lu mu mënti doon wala marchandise te bëgg koo siiwal mën nga jokkoo ak chaîne bi di Tivaouane Tawfekh ci numéro yi mën nga ñu fekk ci TikTok Facebook Instagram ba ci sax YouTube. maa ni rek ngeen di deg ci lepp lu jëm ci seen wër gu yaram ndax suñu produit Tawfekh yi nga xamanteni ay produit bio naturel la yoo xam ci gàncax yi nekk suñu rew lañu ko défaré wa Tawfekh ci lan Tawfekh ci walu negu sëy Tawfekh ci walu mbixum city ba ci Tawfekh ci walu hémorroïde Tawfekhu sëy bi moy produit bo xamanteni mo moo soxal képp ku am jafé jafé ci negu sëy néew carton jeex na tak boo ko fi nga tok 10 minutes avant rek da ngay

hémorroïde moom daa dëkk jële fi lépp produit boo xamante ni moo leen soxal bu seen yaram di diis du ngeen mën dara yaram bi diis gann ngeen di tayel ba jàpp ni sax dañu leen liggéey fekk na yaram bu diis tong la jàpp leen ne suñu produit yii bu ngeen ko jëlee di nga oyof tol gaaw leen gaaw jokkoo ak ñun ci 77 593 19 11 wala 77 245 36 39 kon nag Seydina Omar Kayre ngoog borom produit yu baax yi Seydina Omar Kayre mi ñu andil tawfeex توفيق ماني توفيق ولي غوسي بي غاولي موتيكو تا خامني سونال لو ني باري واي توفيق رك نجي ايش باسك لولو موم لا نيو اندي سي نديغال لولو سيرين حبيب نيك جي سونو نجيت نو اندالو اك كوميتي دورغانيزاسيون بي اندالو اك بريزيدان دايره الكرام بريزيدان دايره احمديه بريزيدان فيدراسيون احمديه كوسكاس اك مبولم ستركتور يي كو سيخ pour jotal wooteem yéeneem ci bokki taalibe yi gannaaw ba mu leen ndokkeele ndokkeel ci weer wi nu génn di shahru ramadan génn ci iidul fitri di korite mu dellu massawu coono mbokki taalibe yi mbokki sénégalais yi ndokkeel leen ndokkeel umma islamique yépp ci weer wii ñu génn ak liggéey yi nu ci liggéey yépp pour melal sunu dénkaane diine xalifa bi ak i rakkam njaboot bi àndandoo ndokkeel leen massawu leen coono ñaan ku ko yàlla may bu ñu demee ba dimanche xam ngeen ni bis boobu daan ànd ak gàmmu soxna umul xëyri sëriñ joxe ndigal ci na mu daan ànde nu ànde ko ak loolu gàmmu soxna umul xayri tey soxna aminte si moo nekk ca kanam ànd ak waa daahiratu rahmati ànd ak ay doomam soxna umul kalsuum daahiratu ni'mati mu ni itam nañu koo dugalaale ci woote bi incha allah bu ñu demee ba fekkee ko ku ko yàlla bën loo nga ñëw fekke ko fekke woote bi feddali sunu wëllëre ak sunu njaboot wan ko ni ko yow la nu am te kilifa day toll njabootam foo xamante ni njaboot ga war naa dalal xelam ci xam ni moom rekk la am muy kilifaam doy mat li mu mat njaboot gi xam ni moom kilifa gi xam ni njabootam la am ci réew moo xamante ni ku ne yaa nga delluwaat ca nga am kon yàlla na ko yàlla dollil wér dollil nu ko bépp tawféex te may ko ay sumbam ndam lu yaatoo yaatu nu duggaale ci biir ndamam fekke ko te tal ko rawatina projet bii nga xamante ni ku ne xam na ni projet bu ko ñor la tabarakallahu ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yëggale ak sago nun ñëpp nu duggaale ci biir lii daal mooy li mënul woon ñàkk ñu jiital ko bàyyi Serigne Habib mu yeggale li ci des ci ndigalam wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh